dal leen ak jàmm yéen a yu bari xëyandoo tey tolluwaayu réew mi euh, bokk na ci wàññi njëg yi ak i tamit euh, njëgu luwaas fa Walf Quotidien di ñu xam lekk euh, président Bassirou Diomaye Faye ñaari poñ yile moom la sasoo ci jamono ji yéen a kaay bi ne mun naa jafe lool ndax mbirum fiscalité ak fu koomu addina gi toll ak bu Sénégal mu ngi ci yéen a kaay bi di Walf Quotidien yéen a kaay bi di Tribune ne jafe-jafe ci wàllu koom Bassirou Diomaye Faye moom xelam dala gum na ci ëllëg yu naat la nar a sóobu lool jëru gi ñu dénk wàllu finance ci nguuram xamle ne mun nañu soobu ci jafe-jafe yu tar ci wàllum koom Cheikh Diba fàttali itamit ne lu aju ci budget beeg na mu demee ak bor bi fi nguuruk Macky Sall bàyyi mun na gàllankoor seen jéego ci wàllu koom yéen kaabi di la mandaane jéego gu mag la fas yéene defe ji ca bitim réew tukkeem bu njëkk président Bassirou Diomaye Faye fas yéene wutali euh, Mauritanie euh, foofee ca Nouakchott euh, laaj daal di samp nag ndax lam fay doxi lu mu ba des mooy ndax day dëgëral jëflante gi diggante Sénégal ak Mauritanie la mandaane ci jamono ji nguurug Macky Sall jeex na tàkk xañ lañ leen sax ay ministre am ay seeni passeport diplomatique mënatuñ ko tukkee yéena kaabi di source mu ngi ñuy tegtal lu aju ci tukkib premier ministre Ousmane Sonko fas yéene wutali building administratif eh, ci bëccëgu tey ji ngir xool googule tax na mu bindoo ak yan ministère yañ fa mun a yóbbu ak ñi nga xamante ne daanaka lañ fa dugal ci milliard quotidien yéenekaay bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk mu ngi ci euh, yéenekaay bi di euh, Source A yéenekaay bi di Le Quotidien xëy waxtaan ak euh, jor gi ñu denk wallu environnement da Ngom lay wuyoo dikkaat na xamle ne am na ñu yéene bokk na ci tamit ñongal wàllub alam gi wàllu environnement fii ci Sénégal xoolaat yi tamit nees mun a def ba li nga xamante ne mooy nguurug Bassirou Diomaye Faye mun cee béy waaram yéenekaay di critique ne am na ñu ñu jot a ñu ñu fàtte fal leen ñu doon ay ministre ci gouvernement bu yees bi yéen cabinet bokk na ci Mimi Touré ban poste lañ ko fas yéene jox ak ñeneen ak ñeneen yéen cabinet mu ngi ci euh, critique mu ngi ci ñu ci euh, jukkil bokk na ci tamit lu aju ci euh, koomu réew mi Bassirou Diomaye Faye ak jafe-jafe yi ko njiitu réew Macky Sall nar jural ci bor gi ñu fi bàyyi yéen cabinet di yor-yor bi xëy di ñu dégtal cool Prodac ba léegi gi fagul bokk na ci amul benn rapport goo xamante ne daanaka. setal euh, na euh, Mame Mbaye Niang ci tuuma ya ñu tegoon ci ndoddam mu ngi ci yéen a bi di yor-yor gi l'info xëy di ñu dégtal juróom-ñaari saa yi fexe nañu ba élection présidentielle am ci anam yu mucc ayib déglu nañu askan wi bàyyi nañu xel itamit tamit euh, ci coowal euh, bitim réew doon sàkku yi tamit ñu amal élection yu mucc ayib njiitu réew Macky Sall na mu deltoo ginnaaw ci yile woote euh, ba élection mun a am ci anam yu mucc ayib mu ngi ci yéenekaay bi di l'info yéenekaay bi di 24 heures professeur Ahmed Ndiaye moom la waxtaan al ne ndax jotul ñu yeesalaat constitution bi maanaam teggaat suñu charte réew mu ngi ci yéenekaay bi vingt 24 heures réew mi quotidien xëy waxtaan nag kii di Mamadou Diop Decroix ma ngay indi njàngatam ci na mu gisee projet PASTEF lambu gis ci jamono ci mooy faw ñu tas assemblée nationale yéen kaabi di Sud Quotidien mu ngi ñuy dégtal lu aju ci Benno Bokk Yaakaar ku jeeg politique bi fa mu nar a féeti ji ak géew politique bi ndax yeewi dina jëmmalaat boppam ña fa ne woon te bëgg a féete ci opposition bi bokk na ci euh, opposition gu ñuy xaaree benn bokk yaakaar ndax du fa jaaree tasaaroo mu ngi ci yéen kaabi di Sud Quotidien yéen kaabi di l'évidence mu ngi ñuy dektal recrutement gu jaarul ci yoon yorit gu jaarul ci yoon ba tax na Mamadou Mamour Diallo njiital la ONAS moom la ñuy sàkku moo jóge fa na mu gën a gaawee l'évidence di ñu dektal Grand Prix international Cheikh Ibrahima Niass jëm ci euh, tarib alquran yéen kaabi ne benn la des euh, Bangladesh daanaka jël na ndam la jot nañ ca yóbbu lu toll ci fukki eh, million moom lañ ca gagné yenn ka bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk laas mu ngi ñuy dégtal jigéen ña féete ca île du Saloum ña ngay dundal koom ga eh, bawoo ca géej ga yenn ka yi di la Soleil mu ngi ñuy dégtal lu aju ci planification familiale njeexital ak eh, la muy gàllankoor jigéen ñi mu ngi ci yéen ka bi di Le Soleil. yéen kaay geneen Walfadjri quotidien xëy di ñu tàggee taskatu xibaar kàngam la ci mécceem tasum xibaar mbay si di mbay dem na démb la génn àddina te ji dañ ko jébbal boromam